li ci li ci garaaw mooy ci mbir mi yow ba nga ne na ñëpp jaar jaarale seen njàngale ci xarale yu bees yi au même moment yow nga jël dogal autorisé ñenn ñi ñooñu ñu jàng ñuy jàngale bokk na ci faculté de médecine waaw la faculté de médecine seen jàngale yi dañ koy def si ngoon lañ koy def ndax matin dañuy nekk ci hôpitaux yi euh, FASTEF ñu ngi doon jàngale ñoom itam depuis octobre ESP ñu ngi ci seen ñu ngi commencé nañu jàngale bi si ñi nekk première année ñu ngi dugg si cinquième ak sixième semaine de cours mais faculté yi gën a rëy yoo xam ne foofu la lii ñu tàkk nakk ci ci ci étudiants yi ñooñu nga bàyyi leen ci biir mais loolu moo loolu moo jaaduwul boo demee sax ñi ëpp ay effectif ñooñu ñu jàng ñi la ñu xool ni ñuy gérer seen mais yow nga ne ñii nga xam ne bëriwuñu ñooñu nañu def léegi police sax moo leen di garder ndax boo demee ESP bu ñuy def seeni i cours police daf fi nekk boo demee FASTEF fii tamit bu ñu def cours gis nga tam détachement boo xam dafay nekk ci ci ci bunt ba loolu yëpp loolu mooy genre xeetu discrimination boo xam ne warul ndax étudiants yi ñoom ñooy yem ci droit